vous vous êtes de métier sortez de la classe parce que du bii gis nga réew mi boo ci bëggee nekk naan man journaliste laa di romb di dawal oto boo xamante ne bu manqué essence nga xam ne kii carburant am sa salaire fayu dañu ah. waxante dëgg nag gis mm. nga boo yàqamtee di nga lor sa bopp mm-hmm. maanaam na patron de presse bu toog ne ma diw présentation métti na si man mënuma chaque jour lii est-ce ma wàññi nombre de jours de présentation parce que quotidienne dafa métti mu ne ma lii nga def nii de wuti ngaa ñeneen parce que am na ñoo ñi ngi xeexee doole télé bi te xam naa ko. Ah. ñi ngi xeexee. doole télé te xam naa ko. cest à di génn mais yow ni nga waxee ni saab di ko bokkoo si loolu. man déranger moom may xëy sol yére bi na la ma toogaat quelque temps ma indiwaat ko. Ah. du ma woon patron de presse bi mukk ne ko li may fay nii am naa ci plus que loolu. Ah. dafa am loo xam ne ko war. mais am na yoo xam ne yow doo ko encouragé. train de vie boo xam dañ koy bëgg te du mën a nekk. surtout quand tu passes à la télévision. amaama yow. boo romee si man ne la lan moo bi wala nga jël car rapide bi. wala nga jël kalandoo bi romb am na lu ñu ko déggee beneen mm-hmm. télévision. Mm-hmm. man corrigé nañ ma reportage yoo xamante ne nii. da ngay ñëw ku mel ni daaw de min may def stage l'observateur yónni ma reportage ma ñëw bind ba pare si ordinateur bi kontaan ñëw kaay corrigé ma mu toog dama indi ma xaw ma lan ma dellusiwaat ma ñëw mu fekk fa page vierge ne ko texte bi xaw moom loolu dama ne ko texte bi fii la nekkoon fii laa ko defoon mu ne ma ko j'ai corrigé kon loolu mooy li nga bind baaxul texte vide la ma bind yépp la effacé ah, ma ne ko waa pourtant lii mu ne ma kaay toog aram ba nga demee lan nga fa jële lan la ñu wax lan nga lii il a pris le temps dans ma tête mu structuré waat sama texte nan laa ko war a bindee ak naka la bindee texte dafa am ñoo xamante ne man damay wax ne dañ lay marqué dañ lay jàngal nga bind texte lobs muy jël temps mun waaye dañ naan la frigo fàtte nañ la ah. nga yaakaar ni dañ la fàtte déedéet dañuy toj sa xol nga war a xam ni lii ngay def des na mais yaay corrigé un reporter mu def reportage am bëgg jàll télé bi nga def waaw ma ne la baax man nag am na loo xam ne mën naa ko nangu ba tey gis nga montage bu amee erreur rek journaliste bi laay lii du ma wax technicien bi. que le journaliste est responsable de mën na ne technicien bi dafa def faute de frappe mais am na yoo xam ne du faute de frappe président Macky Sall nga koy seetaan journal ñu bindoo ko madame ici <laughs> secrétaire général tel <laughs> élément boobu balaa muy jàll ndax xool nañ lu ma gën a bañ nag mooy faute audible mënuma koo dégg waaw massacré yow def direct di nga juum nga rectifié wu tu te rends compte que juum nga formulation boo rectifié wu day am mm-hmm. Mm-hmm. mais élément bu ñu monté nit ko tourné na bu yàgg mu ñëw indi ko yow nga yor ko ci biir rédaction bi heure vingt tal ñu teg ko bi ngay wax ay liaison fantôme di def ay faute audible fi nga toog yow mi di journal nga rus et des gens t'envoient des messages ay crédibilité yow la non ban crédibilité man nee la télé bi suñu bindee sama tur day jàll c'est quelques secondes ñun ñëpp nag nii buñ paree buñ doon bind nii day jàll effectivement sans limite mooy nekk ca kaw mm-hmm. logo bi mooy la star il faut que les gens apprennent à être humbles il faut que le gens apprennent à être humbles ñoo xam ne dañuy juum mm-hmm. da def émission nga pare ñu ne la des na man foofu laay xaar nit yi dama bëgg ku ne ma kii question bi des na. Mhm. ma ne suba ah war naa gën a góorgóorlu gën a jël temps xoolaat woo nit ñi xool lii. formulé waat mhm. mais à propos de question da nga soxal boo xoolee même dernièrement déclaration yu Ousmane Sonko di woote yëpp. mais finalement bi ñu ko bi ñu d' accord bàyyi presse bi di poser question mais yaa xëy te am na ci boo xam te dama yaakaar ni Ousmane Sonko dañuy julli juma. Euh, maa yow wax n'est-ce pas justement waaw dañoo yàqati woon affaire bi jeex pour ñu jóg. parce que non mais non mais tu tu sens que ni xam nga yaa ngi joxe sànq anecdote tu sens que ni parce que ñun chance bi ñu am man dama ko chaque fois mooy ni man bi may soog a ubbeeku ci rédaction en 2011 dañu fekkoon ay xam boo xee ay Gottlob Kamuwa. BBC ay Thomas Aysi maa ngi a def prise ñoo dañ dem cabine fekk bind naa sama texte ba pare yooyu Khalifa ah, doon wër ci marché yi ah, amoon benn programme pour les marchés modernes. c'était la première fois ma def reportage télé ñëw dem doon ba jëli voix ah, ci derrière mi cabine di def mise en bouche affaire yooyu et tout ma ñëw mu ne ma lii rek ma lii ma ne sa baat bi comme baatu jigéen quoi ma doon sànq am na loo xam ne présence jigéen ñi seen voix moo xel ci loolu la dem. xool baatu jigéen quoi wax ma yoo xam ne. boo ko waxoon cette génération yi ma la sa bakkan a fay des. mbaa ñoom seen bakkan parce que duñ ko accepté mais tey man loolu li ma wax noonu lan la ma indi euh, Africa 7 sama voix jàll page inter seli ñett ñett ñetti ñetti est-ce que yooyu ñu fekk Thomas Aïssi ne ko cette voix là bu mu jàllati à l'antenne bu mm-hmm. koy dégg mais léegi loolu lay ne nga ko dëkk bi te xamoo ko mm-hmm. xam day métti ñu ne la wuyu kii bu mu jàllati mais Thomas Aïssi pour wax la encadrement ci direction bi mu amee solo souvent ndaw ñi buy wax ne dañ jege mag ñu leen kii foofu la amee solo mooy après daf lay gindi soo bëggee carrière su dee gëm nga ko Thomas ay si ñëwaat ñu daawam dem xam ni kii vraiment moralement na demul noonu daf ma woo ma ñëw ne ma xoolal booy dem dépêche yi nga doon gérer yëpp parce que mu ñëw page inter la nangam yëpp yu bàyyi la sa kër ngay déglu RFI ngay déglu ngay bàyyi kii ngay xool ñoom ni ñu kii et tout saa yoo ñu def parce que prise de voix yombutoon jaxewoon na bu ma doon fayeeku mais wekkat bu ma doon am dem jënd livre bu wax ci prise de voix nan koy defee ñu nekk ci di góorgóor di nàngam moo tax su ma demee ba jour bi Serigne Modou Kara doon def daan ba fépp di tourné Seliwan bi doon wax ni du ma jàll àllante boo ma ne ma te yaay ànd ak Seydou de Kara yéen def une semaine ci tournée bi def yaay def documentaire bi yaay def yaay def mu ñëw def suñu prise de voix mu jekk mu jàll mu apprécier ma xalaat quatre ans derrière mu fa demee. loolu mooy non mais da da nga accepté souffrir xam ne lii mooy say limite mm. nga liggéey ci ba am fu mu la yóbbu mais fii dañ wax say limite ñu frustré nga dem wala nga fekk benn yoon jàpp nga yaay stable yaay naan nga donc ñu gis ni mentalité bi dem mais justement est-ce que rédaction finalement am na euh, mais moom laa la wax ni même bu fekkee rédaction am na ndax du xott rek lii ah, finalement ñu yóbbu également ci conférence de presse yi tamit duñ leen préparé duñ leen laajal mais dégg nga li ma wax keroog ma ne la Ousmane Sow bu wax naan gaaw la damay dem jumaa dama ko ne gaaw la bu yàqal dem jumaa parce que ki nga ko posé question dama dama riir deuxième bi ko moom rek barki démb boo Ndiaye Bassirou sëñ Bassirou Gueye ah, en euh, ancien kii nu mu euh, de la République ñu def inspection mais benn ñaar ba ñetti question yi am na koo xam ne xoolal dafa répété wax lii moromam sa saa bi dafay am yoo xam ne tu sens que ni ce n'est pas uniquement am nañu bëri ñu dese donc yëpp ñu koy gis alors que ki koy def dafa woote woon journaliste la. te yow am na yoo xamante ni même bi ngay góorgóorlu. laa wax de te mokkal waxuma ne sax dañu mokkal. ba léegi ñu jàng mooy waxal ni waxa waxin la. Euh, euh, même bi ngay góorgóorlu sax am na yoo xamante ni xalaata woon def ko. Mm-hmm. donc pour reprendre li muy wax nii yàqamti baa ngi ci mais formation déficit de formation bi au niveau des rédactions encadrement bi fa war a am. pour que au moins kii génn di nga sentir ni kat kii en dehors de la formation am na encadrement au niveau de la rédaction forcément forcément. prise de parole wala buy poser question di nga sentir ne réellement kii am na benn préparation mais yooyu yëpp tey bu demee ba Marseille à la place ñu gis ñeneen ne ñu envoyé suñu secteur bi ñu jàpp ne sax à a limite ñoom ñoo def ci appréciation yenn ci population bi que il faut mieux que ñun ñu woote ay professionnel finalement li ñu indi mooy cacophonie jàpp naa ni li koy réglé mu fi am nañ solution yëpp maintenant décret d'application yi ngay wax ba léegi on nous dit Sambata Ndiaye Modou Paté commission nationale bi sa vrai daaw de ñun dañuy tudd sànq ñu def liggéey bu am solo ah mais euh, loolu dindiwul ba tey taar bi ñuy gis ah te koy dindi ah, di ànd ak ñoom yéen ñii sax soo am na ñoo xam samay grand ba pare loolu gën a grand sa waay daanale am na suñu doyen yoo xam man su ma leen déglu du ma leen xàmmee wala mu remettre en cause li ma jàngal. ñaari sentiment yooyu am. am na ñoo xam ne su ma non parce que ma xam ne dañoo jàngee ci école am diplôme kenn werante wu c'est de bons journalistes yu def seen i preuve ci réew mi mais ci jamono yi wala ya ko weesu suñu waxee ma ni man naa dem xooli dama jàngi moo wérut wa illaa kii di waxee man bokkut ak kama xamoon. nekk en déphasage ak non mais totalement. Mm, d' accord ay prise de position yu amul fenn doo xam ba xam ci commentaire li ko dugal wala analyse wala chronique wala mais. ban genre journalistique la mais benn la ci amut. d' accord réponse à l' actu vous êtes en direct sur euh, Sans Limite TV euh, ñu wéyal ba tey waxtaan bi pour waajal rek euh, laataa ñëw tëj ñu des ba tey ci fii ah, fa la ñuy fa la ñuy tëjee ponk bii nii sax journaliste yi bu ñu dem sur le terrain par rapport ak information bu outillé outillé bi ñu leen war a outillé ni ñu leen war a njagee. noonu laa ko mën a waxee ba bu ñuy demee euh, ñu mën a représenter rédaction yi ñu jógee parce que tamit image lañu tamit dañu représenter fi nga xam formation bi war mi ngi am niveau des rédactions qu'est-ce qui pose problème ñi war a former seen formation moo des wala xale yi ñoom nangootul xaar formation boobu c'est que yow bëgg indi problème xam nga tax awaama nga bëgg ma indi problème. très vite ak saa. dama bëgg a def fii <laughs> procès des médias. on ne suit pas. parce que ñun ñun sax ñun ñuy évaluer ba léegi. dafa am loo xamante ne nii il faut se se en question da nga wax rédaction yi am na yu baax am na su ñoo xamante ne man su ma jàppee ba déglu seeni reportage walla xool seen menu journal lañ togg neex na nga xam ni ñii am na ku nekk ci ginnaaw di corriger. nga xam li nga xam li nga xam. am na rigueur. mais yoo xamante ne nii mooy mooy li may wax soit nit ki am na lu ko dab ci ay tolof tolof ci biir entreprise am moom yeneen yitteel la tam. na rédaction bi di doxee wala dara lijjantiwu ko. à moment donné nag si yoon bi dina am fu muy soxlaa rédaction donc rédaction bi dafa war a di tàkk rek na lampe bi di tàkk bu mu fay mais ndax lumière bu baax na c'est pas son problème. am na tamit ki nga xam ni moom moo ñëw yor mbagg ne man maay rédacteur en chef ama ma tànn ñu la ndax yaay rédacteur en chef bi danga am xam-xam bi jaar nga am nga expérience am na yoo xamante ne yaa fi sësay taxa fal dañ la fee teg ñi fi nekk yaa fi tane yaa fi tane mhm. wala ci kii ma teg nii kii dina ma déggal mhm. noonu lay demee si rédaction yi bëri na xamante ne nii bëri na si yoo xamante ne ay xale fa nekk man ñoo ma amuñu benn expérience. te ñooy jiite. waaw maa mhm. nga booy def émission ngay génn ñu naan la yaa fi fiy toj nga tase professeur Abdoulaye Ndiaye newoon sisti mhm. mu ne la diw mu naa mu ne la boo mu soxlaa dee ma woo ma jox la ay kii ci télé def nga lii keroog lii def nga lii def nga lii nga xoolaat sa toogaay nag nga xam ni kii ñi li muy wax kat dëgg la. nga nangu ko nga nangu ko c'est important il faut savoir accepter mm-hmm. man bañu ma ko juum moo tax ma ne jum am na mais rédaction bi dafa am nu mu nu mu nu mu war a tëddee man dama dama nekk si rédaction yoo xam ne da nga yeewu le matin ñu toog débrief li àll amoon démb maanaam journal ba ñu débrief ko mm-hmm. télé laay wax parce que peut-être télé laa gën a yàgg moom laa gën a am lu ma maîtriser mm-hmm. bu débriefé ba pare ku ci nekk ñu def tour de table idée reportage xam nga bu ñu xëyee le matin rek naan lan moo fi am. foofu la problème amee lu ma gëj a gis sax. non non mooy problème maanaam nga xëy rédaction rek. laajte le menu. menu ba. kooku dem na xoolal la APS. xool na ndax saali bi am na dépêche mu jël ko. xoolal na la beneen sit Dakar Actu ainsi de suite ainsi de lu am mu dajalal la ne la yii moo fi li fi ne. yow ki toog ministère wala leneen lu mënta doon xalaat service de combat defal ñëpp yëpp woote am na ñu war a fësal yow nga ne dangaa xëy nii rek yomb na ci yow nga jël rek ñoo toog attends la pertinance d'un sujet dañ koy waxtaanee man mun naa ñëw ne tey dañuy dem ministère des finances dañuy couvrir tel tel tel yow nga ne ma signature convention barrage bi intéression ma ma ma ma waxee la pourquoi yow nga ne wax ma tamit beneen kii beneen ñu wër table bi les gens en discutent. mu nekk échange et on choisit. Mhm. c' est comme ça man noonu laa jàngee. noonu la dañ koy waxtaanee. et même en présence des cadres di choisir nag. ci li ñu wax yépp yan mhm. sujet lay jël. Mhm. ñu dem tourner. bu ñu demee sur le terrain tamit. <laughs> beneen réalité moo fa ne. lañ la yónni boo demee amul doo dellu su de. souvent remplacé nga chauffeur. déplacé nga carburant. <laughs> déplacé nga matériel. Mhm. dañuy social ji. nga woote sa rédacteur na ko dem naa fekkuma fa lii mu ne defal reportage société liste ba am na lu fa des mu jox la nga wëriwaat. mais xam nga neex ci loolu nga baal ma dagg dem nga ni ngay ut ay euh, intervenant euh, mhm. ñi bañ wala di nangam et tout souvent euh, reporter bi ñuy wax non mais tu laisses tourner la cam parce que le fait que ngay lijjanti intervenant amoo ko reportage la c' que ni sujet bi ma war a aborder mais ma ne caméra bi mu tourner même bu fekkee ni sax da ngay ñëw pour fuute parce que yooyu yëpp c' est permis ah nit parce que droit de l'image nangam et puis mais au moins yow boo décliné ce sujet wane ni lii la ñu bëggoon waxtaane mais difficile dañu c' est pas pour rien que souvent ñu di di accéder benn structure boo xam ne ni am na lu ñu teg ci kawam forcément di nga ko dem fekk